Sidya Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. Euh, Sidya Ndiaye nga nekk vice-président bu alliance des syndicats autonomes de la santé And Gësëm nag And Gësëm daal di déposer benn préavis de de grève lan moo waral préavis de grève bi li waaw xam nga rek euh, euh, yoon dafa wax ne boo buggee def dara muy maanaam bëri action syndicale bu surtout grève da nga war benn benn demande benn benn bi au niveau du ministère pour que ñoom ñu xam ne respecté nga délai légal pour dem grève mais lu waral loolu mooy euh, secteur santé gis nañ ni état bi vraiment góorgóorlu na ba def ay effort maanaam joxe ay prime indemnité de logement bi mu ngi nekk cinquante mille loolu mosuñu ko am santé mosuñu ko am bi mooy premier bi ñu ngi koy rafetlu mu yokk indemnité de risque bu jógee cinquante mille soixante quinze mille mu joxe indemnité de prime d'itinéraire nga xam ne day jógee quinze mille dem trente cinq mille dem trente mille ak indemnité paramédicale boobu dañ ko catégoriser parce que am na am trente cinq mille am na ñoo am vingt cinq mille donc loolu bu ko defee ba pare ñoom fay nañ fonctionnaire ba pare eh, te dañu fàtte ñi nga xam ne ñu ngi yi ah, ñoo xam ay peut-être ay contractuels lañu eh, ñu ngi nekk ay euh, comment dirais-je ay chauffeur ah, de l'administration ay ay technicien de l'administration donc te accord bi bu ñu koy xaatim dañu avertir état bi ne ko da nga ci boole wàll ñëpp képp koo xamante ne yaa ngi santé publique ba ci rawatina collectivité territoriale bi nga xam ne chaque fois dañ koy fàtte toujours nous sommes les derniers euh, c'est pas bien donc yaakaar ne comme fonction publique locale taxaw na article vingt neuf bi leer na nee na bu bépp avantage bu ñu jox agent état dañ ko jox agent de collectivité locale donc léegi yaa yaaxay ni nañu góorgóorlu ba loolu ñu ñu réglé ko moo tax depuis fan yii wa waa collectivité locale ñu may woo nekk li ma naan mais augmentation état bi augmentation état bi ma ne leen pour le moment waa santé waa santé ñu nekk liggéey collectivité locale ñooy bénéficier prime yi ngeen di dégg mais pour hausse de salaire bi mu ngi concerné li ñu naan in euh, euh, mu ngi point indiciaire point indiciaire mooy boo ko laalee rek dafay laal tous les éléments de salaire yeneen des résidence ak yeneen ak yeneen te loolu yàgg na bi ñu ko bloqué léegi état bi débloqué na ko pour yemale ñëpp boobu amul ak seen parce que loolu ñëpp la concerné toute catégorie mais ñun côté local am na ñoo xam ne d'accord nañ maire yi pour fay ko mais am na ñoo xamante ne nee nañ jotuñu circulaire pour ñu kii étaan donc ñun dañu bëgg loolu sax deñ parce que article vingt neuf code collectivité locale dafa ne bépp avantage bu ñu jox fonctionnaires yi ñun war nañ ko jël parce que léegi ay ñu ngi fonction publique locale donc vraiment waruñu xaar ba ñuy toog di clamé loolu vraiment nañu vraiment ku nekk na liggéey quoi mu jeex ñun loolu lañu laaj dañu ne gouvernement bi nag na góorgóorlu ba loolu mu dugg à nord bu moo tax ñuy alerter parce que santé dafa sensible euh, bu buñ ko yëngalee léegi si mën na indi perturbation te temps yi rek la ñu signé accord même pas deux mois dafa dafa rafetul euh, même pas deux mois ñu déggaat a ay ay ay foyer de foyer de tension dañu war a di intervenir en amont très tôt pour éviter ci ci perturbation sinon ne vraiment mën nañ ko mën nañ ko parce que bu dee fichier la ñu may wax ni waa hôpital yi ñi xam ne euh, personnel euh, établissement public la bu ñuy waa laajee seen directeur yi fichier bi personnel bi dañ ko jox donc amul problème collectivité locale tam bu ñu saisir ministre collectivité locale ne ko jox ñu situation personnel collectivité locale dinañ jox mais on ne comprend pas ba léegi daal ñu ngi tourné autour du moo tax nag ñun ñu ne il faut ñu alerter parce que d'ici décembre moom ah bu affaire yi ñëw de de yëngu-yëngal de. Ah. donc Sidi ah, da ngeen gësam quoi. daal. Euh, su ma la déggee c'est par rapport ak augmentation salaire yi nga xam ne état wu Sénégal euh, def na ko ci agent wu fonction publique bi. Euh, ci veille élection yi mais lan moo tax bi élection yi desee benn fan xaw ma ñaari fan ci la ko daal di def. waaw je pense que pour man c' est une c' est un peu maladroit euh, ñuy xaar ba bay élection di def kii yu mel noonu peut que xëy na dañu ko def clin d'œil euh, ñi nga xam ne ñooy yi mais mënoon nañ ko moytu parce que bu fekkente ne décidé woon nañu pour yokk nit ñi war nañ ko mën a moytu parce que liggéeykat yi aussi ah, dañuy dañuy xalaat dañuy analyser citoyen la ñu dañuy analyser ay situation donc euh, nit bu ne ñoon ah bon gis ngeen ñu commencé répondre à la demande sociale parce que élection ñëw na donc ñooñu yëpp ñoom mën nañ ko mën c'est-à-dire il faut que dans la stratégie du gouvernement mu tenir compte que nit ñi euh, vraiment dañuy yeewu quoi xam nañ fu ñuy teg seen tànk xam nañ lu cetera donc je crois que euh, mën nañ ñoom góorgóorlu ba yenn avantage bu fekkee dañ ko jox nit ñi ñu a xaar ay élection ay kii yooyu parce que dafay niroo loo xamante ne si un truc déguisé quoi donc euh, c'est pas ça oh ko maintenant je peux comprendre le gouvernement a des problèmes techniques pour régler les parce que à moment donné ils ont été obligés de faire des virements de crédit des comment on appelle ça il y a un terme qu'ils emploient pour indiquer un crime budgétaire. Donc loolu je peux comprendre mais quand c'est trop flagrant c'est proche de la situation électorale alors ça pose problème parce que def nañu la même chose pour les retraités ah la même chose pour les retraités retraités aussi ils ont attendu xam nga payi aussi sono nañu trop seen pensé wu dafa néew ñu augmenté ko dix pour cent baax na ñun duñu duñu duñu duñu duñu tëfli ci loolu mais def naa ne man man def naa ne mën nañ dem vingt cinq pour cent pour améliorer parce que tey résultat yi bu ñu bëri seen jabar ci ñoom lañ compter parce que xale yaa ngi kër gi amuñu xëy donc war nañ gën a góorgóorlu pour que retraité vraiment aussi ñu fonk leen ay mag lañ ñoom liggéey ba ba ba bay ba arrêté war nañ leen dimbale ñu am pouvoir d'achat ñu indexé ko sur le coût de la vie waaw loolu daal vraiment maa ngi koy ñaan gouvernement maa ngi président de la république dafa war a jàppale mag ñi war a jàppale retraité yi à la retraité yi pour que vraiment ñoom ñu liggéey parce que ñom ñu ngi waaw ñoom ñu ngi fii euh, di sonn rek xale yaa ngi nii ñu ngi jën kër seen kër bàyyi lañu nekk seen fii amuñu benn vie amuñu benn donc c'est des problèmes réels donc euh, vraiment côté boobu war nañu ko xoolaat bon nga xaar ba élection nga ne bon dix pour cent dix pour cent na cinq pour cent baax na mais vingt cinq pour cent defe naa moo gën. moo gën au moins. su ma la su ma la déggee daal Sidya Ndiaye yokkute salaire bi nga xam ni ñu ko annoncé boobu ba léegi dafa am xaaj ak seen yéen xaaj ak seen boobu ngeen bëgg a xeex mu dakk mais moom moom lay ne moom moo mu jeex parce que fonction publique locale léegi dañuy yemale ak fonction publique de l' état. mais pourquoi ñoom bu ñuy def ay mesures yooyu tout ça duñ ko prévoir duñ ko wax ministère des collectivités locales nañu euh, ministère de la santé nañu ñëpp nañ ñëw ñi nga xam dañ consommé ñoom ne dafay impacté ci ñoom ñu waxtaan. ñoom seen biir ñu defar fichier yi ah parce que actuellement parfois ñun ñooy obligé de defar fichier yi c' est pas notre rôle c' est pas notre rôle donc vraiment de ministères ont tous les moyens ah ont tous les fonctionnaires ont tous les administrateurs tous les gestionnaires pour faire leur travail ils sont là payés pour ça am oto am carburant am euh, crédit téléphone mais doo doo def dara c' est pas bon oh, il faut ñu wante dégg quoi affaire bi dafa doy quoi. on a marre quoi parce que vraiment euh, ces questions-là man dama def ne oui je ne sais pas et puis il faut qu'il parle aux gens parce que moi je vois que c'est les syndicats sont les moins écoutés dans ce pays il faut nga grève pour ñu recevoir ñu wax ñu woo jamais du ñu am benn période alors que pour les centrales syndicales par exemple le gouvernement avait dit au moins une fois par trois mois ou par six mois beneen toogaan yi mais on est le voit que le président la que le premier premier rek pourquoi xanaa ñun bokkuñu ñu am ñu xalaat am ñu xam-xam nous sommes compétents et nous sommes capables de le prouver waaw donc nañu xam loolu léegi xanaa xanaa ñi nekk ci secteur santé bi liggéeykat yi ñoom seeni revendication dañ ko daal di euh, satisfaire parce que déggatuñ ngeen wax si lu bëri waaw wala déet waaw dama ne santé am na ñu ñoo xam ne réglé nañ seen problème mais xajaat seen bi la ñuy bañ parce que am na ñoo xam ne ba tey ñu ngi xaar te ñooñu mën nañu yëngu ñu yëngu ñun loolu def dañu xeex ànd ak ñoom pour ñu régler problème. ñoom yan problème moo leen dese ñu nekkoon ci santé bi. mais problème yi dese ma ne prime yi euh, ne augmentation santé yi dara. aucune prime euh, zéro mais pourquoi ko te léegi par rapport a xaajal seen boobu euh, autorité yi yan yan explication lañ si joxe si xaajal seen bi am. ah ñoom daal dinañ nañ ci ils vont payer ils vont payer mais ils vont ñun liggéeykat yi dama la xamal benn affaire mhm. ñun aussi nawet lañ rek am nañ ay parents béykat ñu dimbali jàll bi am nañ ay yeneen yeneen search di préparer rentrée scolaire mais nañu régler problème yi ah jamono ñooy ñu continuer liggéey bi ah. ngeen tàmbaliwaat yuuxu est-ce que état bi euh, réagir na waa wala déet boobaak léegi. non xam nga yuuxu yuuxoo ñu dañuy yëglu yëglu bi mooy préavis préavis bi am na argumentation bu ñu def bon bu ñu analyser rek dañu mën a bu ñu ko réglé amul problème ñun amuñu problème en négociation n'a pas de problème avec le gouvernement ni avec l'État du Sénégal en négociation demande des accords bu ñu ko defee bu ko bu ko appliqué rek ah ñun ñu continuer suñu liggéey ñun jàmm lañu bëgg dañu bëgg a dimbali euh, Sénégalais ah ñoom ñoom ah ñu mën a jaar ci hôpitaux yi mën a faju ñun loolu mooy sunu sunu sunu sunu sunu yéene loolu mooy moo moo ñu war c'est un devoir nous devons le faire nous le faisons personne ne s'est plaint de cela mais léegi nag lu ñu moom ñoom lu ñu moom koy jël ñun lu ñu moom nañ ñu ko jox lu ñu bokk. ñu séddoo ko rek mu euh, léegi euh, Sidya Ndiaye ànd gësëm ngeen tuddee seen bopp lan moo war a nekk euh, seen plan d'action après préavis de grève bi parce que gëj nañ leen a gis ngeen yëngal wala ngeen def sitting wala marche donc après préavis de grève bi da ngeen di delluwaat ci gësëm bi wala. xam nga ñun. Mm. ay responsable lañu. période yu passée y la pré-campagne la campagne électorale boo fi commencé ay mouvement d'humeur dañu naan wooye ñii dañuy far ñii am na lu ñu bëgg et dañu bëgg a perturber campagne wala dañu bëgg élection looloo tax ñun ñu am na kii bëri dañ koy teg ci suuf nous sommes des républicains bëgg ñu interférer dans dans le champ syndical ni dans le champ électoral moo tax ñu def loolu mais lu tax ñuy reprendre c'est que ñun dañu mandaté nous sommes des mandats donc ñun li ñu li ñu mooy dañ ko doxal bu ñu mënul doxal rek dañuy fi jëlee teg ñeneen donc loolu moo tax ñun absolument on a ñun amul benn programme loolu programme Travail programme Travail mooy ànd gësëm ànd gësëm moo fi nekkal Travail santé te dina continuer di ko wone waaw. tey te li ñuy wax ñun li ñuy wax dañ koy réaliser ñun li ñuy wax dañ koy def donc à partir du trois trois septembre mhm. date de départ du préavis bu dara amul xam ngeen ne syndicat am na ay jumtukaay am na ay outil de outil de lutte bokk ci siti toog ñaxtu bokk na ci dox ñaxtu ba ca grève bu ñu demee nag ba dara kiiwul yënguwul dañuy grève te loolu vraiment war nañ ko épargner sénégalais ak maladie yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci des ah, épidémies qui sont là la Covid n'est pas encore partie on nous parle de la variole du change et cetera et donc vraiment nañ waxtaan ñu jubóo ñu réglé problème yi moo jeex. tey jii alliance ànd gësëm euh, Sidya Ndiaye su ngeen doon euh, évaluer wala di jox note déjà doctoresse Marie Khemesse Ndiaye euh, am ngeen satisfaction si liggéey waaw wala déet gannaaw ba mu wuutoo Abdoulaye Diouf Sarr. xam nga moom il faut absolument mu am période bi nga xam ne comme on état de grâce c'est-à-dire que ñu permettre ko bien que moom mu ngi woon système moo yo direction de la santé la ko xam na bu baax situation ministère il faut mu ubbi waxtaan bi ubbi bureau ñu waxtaan ñu régler problème bi bu ñu ko deful nag ñun xool ñu euh, ministre ñun li ñu xool mooy suñu intérêt donc voilà on est là on est prêt au combat suñu négligé loolu nag en tout cas ñu ngi yëglu ñu ngi yëglu de profité seen antenne bi ne ñu ngi yëglu léegi Mariama Sarr nag bu ngeen ko doon évaluer ci yëglu bi ba léegi. waaw moom lu ñu koy ñaan mooy mu accélérer traité préavis. Mhm. moom day xaar la veille du préavis la fin du préavis woote pour ay ndaje xam nga yooyu c'est pas responsable ah ministre boo xam te dañ lay jokk ñu ne la un mois préavis bi mais balaa muy ñëw nga woote ndaje yore la si le préavis expire à la gëstu mu naan le 4 septembre mu déclenché wala le 5 septembre. donc euh, vraiment na góorgóorlu aussi pour le côté boobu mun nañu dégg daa dégg fii moi ce que je ne comprends pas c' que autorités yi du ñu agir à temps loolu retard yooyu daal mooy indi ay jafe-jafe mooy indi tolof tolof ba di ñuy perturber système bu ñuy réagir ñun ay nit lañ ay républicain lañ ñun ay citoyen lañu xam nañu ñu di doxe xam nañu lépp nag nekk ñu gouvernement mais on connaît tout on sait tout de la marche d'un état de la marche d'un gouvernement moderne vraiment que les, les populations bénéficient de ces actions, elles doivent passer par les travailleurs. Hein, qu'ils soient à travers rural, qu'ils soient à travers euh, l'administration centrale, qu'ils soient à travers dans les villes ou dans les campagnes, on doit tout faire pour que chacun, puisque les ministres boo leen xoolee ministère bu nekk am na secteur bu ñu lay jox waa yaa xayti nañu góorgóorlu secteur yi ñu jël ko en charge moom si ñu vraiment c'est ça que je demande quand le président la République nomme des ministres il leur donne tous les moyens pour régler problème bi dañ ko parce que président moom du dem ci terrain bi moom du kii dañ koy rendre compte rek mais mais ça ne passe pas. Sidy Ndiaye Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf waay soxna si. may euh, yow yaay vice président bu alliance des syndicats autonomes de la santé and gësëm. jërëjëf